looloo waral ma jël dogal yii benn lu ko dalee ci talaata ëllëg incha allah couvre-feu bi dina tàmbalee neuf heures ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar ñaar waxtu liggéey yi dinañu tàmbalee neuf heures ci suba ba ñeenti waxtu ci ngoon ñett marché yi danañ leen ubbi juróom-benn fan ci ay bés yu nekk di tëj benn fan bu ñu jagleel seenub set setal gox bu ci ne préfet ba dana tànn bés ba muy bésub set setal ba ñeent luuma yi dinañu ko ubbi ci biir département bu ne waaye kenn du génn sa département jàkka yi jumaa yi ak jàngu yi dinañu mën a ubbi ci anam yu méngoo ak ni ñuy xeexee mbas mi ci loolu ministre de l'intérieur ak ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram dinañu ci diisoo ak kilifa diine yi imaam yi ak ulema yi ak waa jàngu bi juróom benn ci lekkool yi classe yi def examen di CM2 troisième ak terminal danañu ubbiwaat ñaari fan ci weeru juin ñi ci des danañu wéy di leen jàngal ci télé yi ci rajo yi ak xarala yi maanaam toog sa kër jàng fépp fu mu waree nguur gi dina fa teg kaaraange ngir li war a ànd ak dogal yu bees yi ñu mën koo sàmm raxasu bi dàndante bi ak mask takk mask ak lëpp luy tënk jàngoro ji ba du law mbokk Sénégal li mooy mottali dogal yu bees yi ñu jël ndax kat bu ñu ko deful ba jàngoro ji jógaat ci anam yu ëpp loxo ñaanuñu ko yàlla su boobaa dinañu jël ay dogal yu gën a tar yi fi nekkoon ngir mën a aar askan wi kenn réerewul mbir ne bu ñu taxawee takku ak sunu xam-xam suñuy ñaan ñu defar ay gel ak i saabu ngir raxasu wala raxas loxo yi ñi ñaw ay masque ñuy fent ay xarala dinañu mujj daan corona bi ma